Nobody is here. Take a risk. Where are people? It is lunchtime and nobody's here. What? It is lunchtime. If you exit one minute, don't ask me for 80. When mom, where is him? How nga kooku ci look at him he always sleeping. waaw <laughs> eh? if you want to eat you can sinon restel foofu. loolu laa mën a wax. ah. dogal. saa nak. I say you can start with. Eh, mendingan Foto life is very difficult, but great alhamdulillah because have money. Kuyur dengan yang gue kalau hanya bëgg a def yow papa da nga soof yow loolu ay. da nga jëlee doon di saaga da nga xam sama yaay. ah yow Fatou la ma sa morom xam nga wax man rek ko

Shabaran, that, that I need to tell you something, but I wouldn't like my own to be honest. Anda! <laughs> Anda, come here right now! Go on, please. That, ma'am, du yi uh, ma concours bi ma wax bële uh, passé te ñu sélectionné woon pour ma def kii nii seen concours uh, anglais. waaw gars yi ñu but he's, I That <laughs> uh, I have just to send you to my English test. English test, yes, that. Hmm, what is it? Uh, um, i one of the organization called the Yes Program, okay? Yeah. Uh, that go people, those don't go to America. America!

xool xoolaat ba xam déglu ko. Listen to me. You only have no job, no food, no fire. Well, what is job? What is what is fire? Your brother will go to America. America. Yes, it's next the program. And you, you only become like a little child. Like you are a big man now. Yeah, I'm all in jump sax. Sim, jump. Stop me, bugger it. You walk me, bugger it. You know, I'm a novel. Stop me, stop me. You're son. You're son. Mandaga. Nigga, jump like jump, Today is for you. To happy the world, I'm to baby is for you. For them, answer your day, so What? What? ñëw wala daya foofu rek boo mandee dangay tëddi bu yàgg ñu mandee woo teedama def dër teedama def dër def dër def dër <laughs> way sama day mandi rek dana dàgg ko waaw yaa ñëwal <laughs> rek Labai open numuna bai bara wurna so baki senin tua baki Allah merah pare lek abu ku papa bila ya me pare punya waktu ga pu merah merah mari nama do sa changu me wurna so lai lo ka wai ter ter uh wai Allah wai Babi nyana de, ini. pokok kolo. Lalu dia, kini Koyala na mbuni mwa. Ya bab ya ya chicken dal. Dilay wala cha. Kila. Lugun jale ge mo ko ki. Koy par de na ay koy ne da kay. Ara ra fomo ba. Da ko kanata ne de na do mo ko ki. Ki ne jam. Wa khalan wa. Tara woon saaga wuy ma tam may fay de waaye loolu problème nee na boobu jàpp ne tey nag safara lay jëm jamono mooy quatorze jëm daal quatorze jëm vingt cinq jëm lay jëm man safara lay jëm loolu problème saa de day xanaa xone bi moo dem Amerika ba baax sama tahu bu ya? ya neexee I just tell you something Boleh Amerika kamu Amerika la xam nga waxee di damaa jàngul nak. Amerika la jàngul Boleh jangan boo demee jàng laa la sant ñibbi baax ngay jooy wi ma tata gu seytaane bi moom papa na la yan neen yow rek alors que yow man ma yow rek Kare belanja lagi, mau belanja, tadi ada ketrap. Tahu lo gue jalan. Dad, don't cry, Dad. Papa nggak ingat, Papa jangan tegur. Dad, boy, sa papa sax wóor wax ma si teg baat mais man moom li ma am pour wax la mooy gën am na jom bu baax si li ngay def xam li am na loo bàyyi sa ginnaaw aussi nga xam bu baax la yóbbu nga jëm. waaw. there. I can set it up. Ragal dumatak, GM King anak siyam. up dumatak, GM King anak siyam. Ragal dumatak. Baby, I'm born mi da find out rap. Bon, kabutaw sa muna niyo ko ang feel. Kaya ito ko ang black here. waaja na ngay def ne xaaral xool yow eh, même jox nga ma woon si yow problème eh xoolal tëdd laa def eh adi li nga yor wala moom firi eh, laa lay wax adi li nga yor ki dee naa ki i uy sa faat naa boola ai meu Deus! ai meu Deus! calm down, calm down. Down boy should lady. Girl and security. <laughs>

challenge bi lañ joxoon j'espère que nag ki ko agressé moo ko moom. ok gars bi sax man dama dama ko xàmmee parce que à chaque fois rek moom li muy liggéeyam mais xam naa da ngeen dem mu ci piscine party bu am jom ngeen wàcceel ma ko foofu ngeen indi ma ko léegi léegi. ok. It's la ngeen xaaral policy Where? You never. Hey! Why are you killing this boy and who sent you to kill him? Ooh. Hey! Eh, tell me what would you say? I haven't any child. Hey! Tell me what is the truth. Yo dengan nak pergi burung tua. Yo, ya ya tak jangan yo. Hey, you heard that you were intelligent. Homo. If You are my fan. I take the truth. Oh. Hallelujah. This <laughs> is problematic, Borel, up? hey! This is Okay. Nayab, Nayab. Answers. Diane, mom of wife. Diane. Double. Okay. It didn't in, in,